ma doo ma wax ma arrêté sama match yi wala nga dem toog seen kër doo ma dimbali mat chaque jour ma dem man man mami man ëppal naa de mel ni ku bëgg si signé nii mel ni ku bëgg a nekk zone doo ma ci nga wàññi ma ci nga xaw ma yuuxu ne ma arrêté sa match yi wala nga def benn doo ma dimbali ci lii maa la ko ñaan match yi ba ëpp ëpp na ba pare équipement yi ma zóor yi di may moo may encouragé may gën a dem terrain man du ma zóor mami doo kaas ne ma अरे ते मस्ती वाला मॅडम टोक सुरू कर ओला जा रे हां wala amoo leen loo ci wax aussi moom daan neex moom da ngay gisee match vingt et une heures pare vingt deux heures jaar am foo jaar ba vingt trois heures nga ñëw ci kii ne match beegi soo ko jeex wala deexul xam nga damaa bëgg football xam nga damaa réew xam nga damaa xamul sama bopp jour boo xam ne yow da nga raté li ma yor ci équipement tey dama leen wan suba wan leen mayo ginaaw suba ma wan leen kilote ginnaaw suba ma wan leen ay xol cuissard won len yeb kawas yeb dama len koy wan xolal ñi naan ma Aba xamo dara yéen xamul dara de je suis un très grand attaquant je marque des buts comme les Messi les Chris mm, fexe leen ngeen seetaan ma te ngeen régler bu len ma gis nii may def comédie ngeen yaakaar non non non je joue très bien au football